waaw jërëjëf Kader bi nga defee appel à moi pour ci lu jëm ci wàll bi nga xamante ni mooy sa problème bi ah pare naa pour défendre la waaw mais nag da nga war a xam ni dëkk bi neexul waaw dëkk bi neexul et puis dëkk bi daal demeewul noonu ah di la wax nag ne la bu dee yàlla dawal na nga am benn. cinq cent mille mën naa la jàppale waa dimbali la dama lay dimbali rek parce que aussi xam naa ni yéen yorewu leen noonu mais dama la bëgg a jàppale dama la bëgg a dimbali waa cinq cent mille cinq cent maître pour pourtant man wane naa wane naa audio bi wane wan jox naa enquêteurs yi audio bi ne leen audio baa ngi nii waaw mais ñoom dañ ne bi du audio bu tooy ñoom ñoo wax ne audio bi du audio bu tooy mais man jox naa leen audio bi mais maître yow it war nga war nga xool parce que cinq cent mille cinq cent mille bu ma koy jëlee bugaan li muy fay demeewul noonu daf ñuy mosat rek waaw daf ñuy mosat rek ñun ñëpp euh, daf ñuy ñamal donc yow lii war nga ko def euh, fi sabililaay war nga ko def fi sabililaay parce que euh, ñun ñoo bokk combat bi man ak yow ñoo bokk combat bi waaw donc affaire bi war nga ko mën a def fi sabililaay xoolal fii amulay fi sabi laay fii laa laay la dégg nga man damay may fay dañuy waxtaan ba juboo wax naa la cinq cent mille nga naan ma maître man ko def pour yow fu ñu bokkee comme salaire bokkuñu comme ka may avocat loo yaakaar ma ne léegi nag mën naa waaye nag fii la yem na xam ne tamit du ma ko nangu parce que avocat la am na prix yoo xamante ne léegi boo d'accordee ma teggil la eh, cinquante eh, yi nga jox quatre cent cinquante wax ko bugaan d'accord daf leen di mosal waaye nag bu leen di mosal yéen it ngeen mosal ko ci wax yi waaye di wax di xëy tambale di dugg ci yéeg dugg ci laa am na xam ne waru la cee parce que fi nga dugg ni dafa grave parce que leer yow da nga wax ni amé nga audio loolu c'est grave si wàllu justice loolu ça c'est grave li nga dafa grave mais nag mën naa ko layal parce que man yàlla dimbali na ma mën naa lay ci tribunal ba mën naa layal ci télé rajo yi jël affaire bi def ko am politique loolu mën naa ko du rek waaye nag ba nga delloo sa xel parce que nag li nga bëgg dafa yomb maa ngi ci yeneen dossier dossier jéegi baa ngi ne boo deful ndànk moom laay jël bu ma ko defee priorité booy ba xam ni da nga donc quatre cent cinquante cinquante yi daa mën naa ko teg maître maître jàpp ci jàpp ci rek maître xoolal dimbali ma rek ngir yàlla parce que boo ci boo day garaaw quoi dimbali ma rek ngir yàlla jàpp ci rek maître bugaan ñun daf ñuy mosal rek daf ñuy mosal rek yëpp bu ma yemoon ci animation moo gënoon quoi maître maître maître arrangé ma rek jàpp ci quoi. quatre cent cinquante aw ma ko wàññi ko wàññi ko wàññi ko. xale xoolal man munoo ma topp naan ma wàññi ko wàññi ko parce que aussi tamit mënuñu mënuñu di wax boobu nag da nga naan ah, wàññi ko wàññi ko te fayoo prix léegi loo fay waa léegi da nga wax li nga fay waxal. nga jàpp ci rek vingt cinq mille quoi. <laughs> vingt cinq mille baax na. man man nga daal vingt cinq man nga daal vingt cinq mille avocat vingt cinq mille ah. man nga daal vingt cinq mille dama nga jëndee ko kaani ak laaj ak xorom poole avocat vingt cinq mille